anhu nee na dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bés yi guddi yi du ñu dem mukk lu dul am na waajoo xamante ne dafay feeñ nekk ab buur bu ñu tuddee jax jaaxu nee na kooku bu feeñee rek jàppale ne fukki dëkk àdduna yegg na kooku moom mooy fanweeru mandarga bi ak juróom-benn fanweeru mandarga bi ak juróom-ñaar mooy taklimu siba lil insi yonent ne la bu ngeen demee ba bàyyi mi nga xamante dañoo soxor gaynde yeeg segg yeeg xaj yeeg xeeti bàyyi ma yooyee bu ngeen demee ba ñuy wax ak doomu aadama yi doomu aadama yi dégg jàppale tukki teg àdduna yegg na daañu ci yegg nag daañu ci yegg nga jubab xaj muy wax ak yow ngay dégg daañu yegg nga jub gaynde muy wax ak muy wax ak yow ngay dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne walladi nafsi bi yadihi laa taqumu saa xatta yukallima sibaa al ins nee na maa ngi gën ci yàlla mi nga xamante ne suma bakken mu ngi ci loxoom bés penc du taxaw mukk lu dul bàyyi ma yi nga xamante ne dañoo soxor di loraate bàyyi ma yooyu di wax ak doomu aadama yi ñuy dégg daañ ci yàgg nag daañ ci yàgg nit ki bàyyi may di wax muy dégg muy tontinte ak bàyyi may yonent nee na bu ngeen demee ba àgg foofu jàpp leen ne tukki teg àdduna yegsi na kon nag mbokk yi doomu ndey lim nañ jotaay bi fanweeri mandarga ak juróom-ñaar 37 mandarga ay signe yoo xamante ne bu ci nekk rek teg nañ ko ci ab xadis boo xamante ne yonent moo ko wax ñu nekk ay mandarga ñuy mandargaal tukki teg àdduna waaye fanweer yi ak juróom-ñaar yi ma lim fi yëpp boo xam-xam yi ñu ngi ko boole ci alaamatu saa ak sugra mandarga yu ndaw yi ma taxu ak yéen nag jëm ci ñaareelu xaaj bi muy alaamatu saa al kubra ponkali mandarga yi nag lan moo wutale mandarga yu ndaw yi ak yu mag yi mandarga yu ndaw yi dafay feeñ rek doomu aadama yi di ko gis du am coppar ne gu muy def ci nizaamul kawn doxalinu adduna bi waaye ponkali mandarga yi ñuy waaji lim nag bu ci feeñ rek dafa am coppar ni gu muy def ci adduna ni muy doxee dafa am coppar ni gu muy def ci adduna muy doxee ponkali mandarga yi may waaji limit moom mu sës rekk nag ci taxaw bés penc bu feeñee rek yàggul buy feeñ bés penc ay ñëw yi ma lim sànq dinay feeñ ci jamono dina wane jege ñug bés penc waaye ponkal yi mbokk yi may waaj lim bu feeñee digganteem ak bés pénc dara dox fa buy feeñ rek ku nekk takkal say bagaas te xam ne la ca topp moom mooy tukki teg àdduna mandarga yooyu mbokk yi ba ci jëkk mooy zuhuru al imaamul mahdi mooy kilifa bu baax guy feeñ ci jamono ñu koy wax al mahdi day feeñ ci jamono nekk ku jub tey jubale nekk ku jub tey jubale bu feeñee yàlla daf koy baaxe muy gindi doomu aadama yi di leen delloo fa ñu nekkoon dem mooy di leen delloo ci alquran ak sunna nekkul ab yonent nekkul kuy andi njub lu bees waaye dafa yeesalaat njub li nga xamante ne moom la ko yonent yàlla bi bàyyi woon dafay jàngalaat doomu aadama yi delloowaat leen seen diine kooku moom mooy imaamul mahdi waaye mbokk yi dañu taxaw ci kilifa googee ah dafa bokk suñuy pas-pas ñu war koo gëm jullit bu nekk war naa boole ci ay pas-pasam ne am na kilifa guy feeñ ci jamono mu jig jamono ñu koy wax al mahdi am na nu muy feeñe am na ay mandarga yoo xamante ne yonent yàlla bi daf ko joxe muy mandargal kilifa googee waaye jamono yàgg naa dégg ay nit yi woote woo mahdi jamono yàgg naa dégg waxuma suñu réew mi rek xëy nit da cee bokk waaye jamono yàgg naa dégg ay nit yi woote woo Mahdi ak chi arafida muy chiiti ñoom ba léegi dañoo gëm ne seen imam Mahdi léegi mu feeñ la dafa làqu ci aw dëkk waaye ak feeñam moom daanaka léegi mu daal di yegsi du ñoom dong am na it yeneen kuréel yoo xamante ne dañuy woote woo ak Mahdi suñu réew mii dégg na ab woote boo xamante ne fii la bawoo maam réew mi dafa bokk ci capital yi bidaa yi nekk ci àlami islami maam bidaa yu baree bari yoo xamante ne mu ngi feeñ ci askan wi daanaka réew mi am na ci ab cër bu rëy li ko waral nag daanaka mooy ñàkk am force boo xamante ne mooy aar diine ba tax na bépp woote bu jëpp te dëppoowul ak diine mu war a fay woote boobee war a fay ña nga xamante ne ñoom ñoo koy woote ñàkk koo am nag moo waral woote yu bari di feeñ ci réew mi ak yeneen réew bokk yi mandarga yi la yonent yàlla joxe mu nekk ci imaamul mahdi ba ca jëkk dama bëgg nag ñu mokkal ko ngir kenn bañ ñoo naxati ba ca jëkk mooy Muhammad lay tudd boo tuddee Omar wala Demba wala Sàmb génn nga bu yàgg bokkoo ñaareel ba baayam Abdallah lay tudd yonent nee na ñooy bokki tur sama tur ak turu baayam mooy bokk Muhammad lay tudd ibni Abdillah boo tuddee Muhammad sa baay tuddee Sàmba wala Yoro wala Omar wala Ali du yow yaa axi même boo ko wootee du yow bokk nga ci fanweeri fenkat kon turu baayam ak turu yonent bi ñooy bokk benn ah mën naa am waayu ñëw tudd Muhammad baayam tudd Abdullah mu woote ko yonent nee na Haashimi lay nekk sama biir lay bokk boo def wolof wala ngay lébu wala ngay xalpulaar wala ngay saraxule wala ngay iranien ah wala ngay ab turc wala ngay français wala ngay américain wala ngay espagnol wala ngay allemand yaa xi bokkoo kii Haashimi lay nekk arabe lay nekk boo xamante ne direct yonent bi lay nekk ñetti mandarga yi bu ñu ko xamoon rek ku fi wooteeti rek benn ñu ne la yow wala ñu ne la tuug da ngay fen Muhammad lay tudd bàyyam tudd Abdallah mu bokk ci sët yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent nee na bokk ba tey ci ay mandargaam mooy nekkul koo xamante ne day xëy di woote da dañuy julli ak julli rek mu génn rek gaa ñi gis ko nee na boo xoolee kawar gi dafay daalu ci dër yi dënn bi dafay yaa ku bari sikkim lay nekk koo xamante ne day julli ci nit ñi rek am nday am baay màgg ci diine yeru ci di yëngu ci xam-xam ba bés rek mu génn ci jàkk rek jullit ñu jaayanteeg moom am na sax ay borom yi xam-xam yu ne rot na ci ay asaar ne bu ñu jaayanteeg moom day joxe ngaan kon xam nga ne kii du jël média yi tànqal ni ñu naan maay mahdi subaa ngoon nit ñi ñooy jaayanteeg moom mu joxe ngaan ba mu dem nag ba gis na nag mooma mu tàmbali nag te yàlla daf koy defal nag tawfiq yàlla daf koy defal tawfiq muy soppi doomu aadama yi di leen delloo ci diine di leen delloo ci li nga xamante ne moom mooy njubal lislaam di leen delloo ci sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mahdi moomu dafay feeñ lu jiitu bés penc di dik kooku mooy mandarga bu njëkk ci ponkali mandarga yi ñaareelu mandarga bi mooy zuhur dajjal dajjal dafay feeñ dajjal day feeñ ci mujjug jamono moom it yonent jox na ci moom ay mandarga yu bari yoo xamante ne rek dafa bëgg jullit ñi bàyyi xel ci ci moom fitna la lu rëy loo xamante ne yonent yi ko jiitu woon sax ku ci nekk daan na musul ci yàlla ci dajjal aw ayam dajjal mbokk yi nit la kuy feeñ di ngeen di faral di dégg ci lenn ci ay waxkat ñu naan dajjal du nit dajjal daal mooy yàqute jamono mahdi it du nit mooy li ñuy wax réveil islamique jullit ñi ñuy delloo seen diine képp ku ngeen dégg muy wax loolu neen ko sa àll wa soriwul dajjal nit la mahdi yi nit la yii firndeel na dajjal nit la mooy yii am na lenn ci saxaaba yi ñu ko gisoon ku mel ni Tamimu Daari hadis baa ngi ci Sahih Muslim Tamimu Daari lu jiitu muy dugg ci islam dafa àndoon ak mbooloo war gaal di dem ci géej ñu dem ba sori gis benn rab ñu koy waxee rab lu leen jaaxal rab boo xamante ne kawar gi bi mu ngi dem ba ci suufam nee na ñu tiit lool mu woo leen laaj leen fu jógee ñu wax ko mu ne leen am na waa joo xamante ne soxna la am ay information yu mu jël ci yéen bu ngeen demee ci dëkk wale waa jooju mu ngi foofu dem leen ngeen seet nee na ñu jow suñuy gaal dem ba ci dëkk bi ñu ngi gis waa joo xamante ne dañ ko jëng ak ay chaîne waa joo xamante ne benn bët la amee ñu ngi ko jëng ay chaîne nee na bi ñëwee am na ay laaj yi mu ñu laaj bokk na ci dem leen laaj mooy ndax yeneen sëpp lu jub jamono feeñ na gaa yi ne ko axakañ mu ne kon nag léegi ma jël ma jóge ci situation bi ma nekk laaj nga leen ndax am na teen mu leen laaj ndax teen boobu mu ngi am ndox ñu ne ko am na ndox mu ne léegi mu déy am na ay garab ñu leen laaj ndax mu ngay ay tool ñu leen laaj ndax mu ngay meññ ñu ne ko mu ngay meññ mu ne léegi dootul meññ laaj nañu ay laaj yu bari ñu daal di dem ba nu dikkee dañ ko netteel yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu oo mbooloo mi yëpp ne leen li ma leen den wax suba ak ngoon ci biir dajjal mbooloo mi ñu ngi koy dëggal mbooloo mi dëggal nañ ko daal di ree ba ko gaa ñi nekkalee loolu kon dajjal nit la kuy feeñ mu jug jamono ah lii wane na nit la ba tey yonent nee na bëtub càmmañ bi dafa far amul bëtub càmmañ bëtub ndijoor bi am na sikk bu ci nekk lu mel ni benn wee kon ñaari bët yi ah bu càmmoñ bi moom dafa far bu ndijoor bi moom am na sikk lu ci nekk kooku mandarga ci ay mandargaam nee na boo xoolee jëbi ñu ngi ci bind ñetti araf yi kaa kaaf ak fa ak ra kaa fa ra nee na loolu la ñu bind ci jëbi tëstan ñu nag tëstan wu rëy la ne borom tëstan wu rëy la kon yii ay mandargal yoo xamante ne yonent bi daf ko mandargal dajjal yonent nag nee na moom dajjal bu feeñee réew yépp fu ne dina fa teg aw tànkaam réew mu ne dina fa teg tànkaam ba mu des ñaari dëkk yi muy Makka ak Madina ba mu des Makka ak Madina nee na ñaari dëkk yooyu ay malaaka ñoo koy wër bu naree dugg rek malaaka yi dañ koy dàq yonent nee na bu ñëwee Makka bu ñëwee Madina day yéeg ci jabalu Uhud jabalu Uhud fa lay yéeg bu yéegee mu wax ne ko topp ne leen hada qasru abyad qasru muhammad nee na hada qasru abyad masjidu muhammad loola yax bu yéegee ci jabal Uhud danaan xool leen pale bu weex bële xool leen pale la wax de waxul daf na xool leen pale bu weex bële mooy jàkki muhammad jàkkaam yi tey jii te Madina foo tollu gis ko mu weex tal noonu la mooy jàkk yi tey dafa weex tal tiim na maanaam immeuble yëpp boo taxee ci jàkk ci montagne Uhud la ngay seen mu sëpp dëkk ba mooy jàkk yonent yàlla bu mu weex tal tey jii loolu boobu melokaan la rek yonent waxoon na bu yàgg ay siècle ne dajjal bu yéegee ci kaw montagne ba mu jox oxoot dafay joxeñ jàkk ji ne hada al qasr abyad masjidu muhammad nee na pale bu weex bee ngeen di seen ay ay antiloom la koy wax ne leen moom mooy pale muhammad yonent xamal nañ ba tey ne am na ñu koy topp nee na li ëpp ci ñi koy topp ñaar ñi la jigéen ñi ak yahuud yi yal na yàlla musal ni aar suñuy jigéen ba ñu bokk ci ñi koy topp moo tax ku am jabar gu jigéen góorgóorlu nga yàq ngir ñu mën a mucc ci dajjaal bañ a bokk ci ñi koy topp yonent nee na ñaar ñii ñoo ëpp ñu koy topp mooy jigéen ñi ak yahuut yi yonent nee na bu feeñee dafay yor lu mel ni aljana ak lu mel ni safara di oo doomu aadama yi nee na aljanaam safara la safaraam aljana la aljanaam safara la safaraam aljana la dafay jommale moom dajjaal dafay jommale nii lay def moom dajjaal di yàq ci kaw suuf di fitnaal doomu aadama yi mbokk yi doomu ndey yonent yàlla bi jox nañu ñaari muslaay yoo xamante ne moo ñuy aati dajjal na ko ñëpp xam di ko jàng bés bu ne ba ca jëkk nee na mooy tàmbalik sóoratul kahfi aay yi jëkk ci sóoratul kahfi nee na boo boo koy jàng yàlla na musal ci dajjal ak ay pexeem benn ñaareel bi mooy ñaan nga mu daan ñaan gannaaw ba mu taaya bu taaya ba def salaat ibrahim yi ba pare daan na wax allahuma inni auduka min fitnati almahya wal mamat wa min fitnati azabi alqabri wa azabi jahannama wa min charri fitnati almasihi dajjal ñaan googu daan na ko ñaan saa yuy taayal di ñaan yàlla mu musal ko ci fitna yi dund ak dee fitna yi mbugalu bàmmeel ak mbugalum safara ak fitna yi ay masihi dajjal kon dajjal dina feeñ mbokk yi balaa àddunay tukki lii mooy ay mandargaam lii lay def ci kaw suuf waaye lii moo ci musal jullit bi ñaareelu mandarga bi ci ponkali mandarga yi feeñ bala àdduna tukki mooy wàccuk yonent yàlla Isa yonent yàlla Isa dafay wàcc loolu yonent yàlla bi wax na ko ci ay hadis yu bari yoo xamante ne xaw naa àgg ci darajat tawaatur am na ay jullit sax yoo xam ay nit yi askanoo ci xam-xam ñii wax naa ne Isa du ñëwaat naam am na aay bu ñuy tegtaloo dañu naan yàlla moo wax ne yaa Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya yow yow Isa ñun yàlla ñoo lay faat ba pare yëkki la ne kon Isa lu jiitu yàlla di ko yëkki ci kaw daf ko faat ba pare dokkaa yëkki kon du dellu si waat ba tey ñu ne ahadis yi nga xamante ne dafa ñëw ci dikku Isa ay ahad la te ahadisul ahad kenn du ko nangu ci wàllu pas-pas yooyu ay tegtal la ñuy tegtal loola waaye pour tontu tegtal yooyu mooy aay bi ñu tegtaloo mu tawa fiika googu yàlla jëfandikoo ci aay bi du firi faat ay nelaw lay firi mooy instant ñoo lay rof ay nelaw ba pare yëkki la kon instant ba ko yàlla yëkki daf ko rof ay nelaw muy nelaw yàlla yëkki ko mu jóge ci kaw suuf dem ci kaw asamaan kon bari na ci alquran wala dikk na ci alquran baatu foofaat firi ay nelaw allahu alladi yatawaffa al anfusa fi mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawtu wa yursil al uxra baatu wafaat foofee ci ay yi li muy firi moom mooy ay nelaw li ñuy wax it ne ahadis ahad moo ci ñëw loolee nekkul dalil maanaam ni ñuy nangoo ahadis ahad ci wàllu ahkaam noonu lañ koy nangoo it ci wàllu li nga xamante ne moom mooy pas-pas kon yonte yàlla Iisaa dina dikkaat balaa àdduna jug lan mooy nekk nag liggéeyub Iisaa liggéey bii la ba ci njëkk mooy Iisaa dafay dikk pour rey mbaam xuux yi dafay dikk pour rey mbaam xuux yi benn tabaan buy rey mbaam xuux yi day ànd ak jullit yi ñaareel bi mooy Iisaa bu dikkee dafay dem ma croix yi ndax croix bi dafa am lu muy symboliser mooy ne Iisaa dañ ko pendre daaj ko Iisaa bu dikkee dina dem ma croix yëpp Iisaa kooku mooy ñaareel liggéey bi ñetteel bi mooy Iisaa moo war a moo war a rey dajaal mi doon wax sànq Iisaa moo war a rey almasihi dajaal bi ci des mooy Iisaa bu dikkee dina weddi tuuma dañ ko tuumaaloon moom ndeyam nan Iisaa yàlla la nday yiit yàlla la bi ci des it mooy Iisaa bu dikkee dina dëggal yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam lii wane nag dina ko dëggal mooy Iisaa dina julli ci gannaaw imaamul mahdi Iisaa dina umra ji Iisaa dina aj yëpp day wane na kon diina ji yonent yàlla Muhammad andi mooy dëgg moo tax bu dikkee dina jëfe lenn ci ay shaa'iram dina julli ci gannaaw imam mahdi dina umra ji dina ak li nga xamante ne moom mooy màkk kon Iisaa lii mooy ab liggéeyam ci kaw suuf yonent yàlla bi nag am na lu mu ñu dénk mbokk yi yonent nee na yéen sama xeet ku yàlla baaxe ba nga fekke wàccuk Iisaa bu la yàlla baaxee ba nga gis ko nang ma ko jotal sama nuyoo nang ma ko jotal sama aw nuyoo kon kooku moom mooy ñaareelu mandarga bi muy dikku yonent yàlla Iisaa alayhi salaatu wasalaam ñetteelu mandarga bi mooy xuruju yaajuuj ak maajuuj xeet woowu ñuy wax yaajuuj ak maajuuj dañuy feeñ ci kaw suuf ñu nekk ay mbindeef ci mbindaaf yàlla yi yonent nee na yaajuuj ak maajuuj buy feeñee day fekk jullit ñëpp daw làqu ci montagne yi ah dugg ci tafe yi làqu ñoom yaajuuj ak maajuuj bu ñu wàccee nee na dex gu ñu romb ak géej gu ñu romb dañ koy naan ba mu yëf sax ba sax ay nit bu ñu fa jaaree dañ naan fii day dex mas na fee am wala fii géej mas na fee am bu ñu naanee dex yi ak géej yi dañuy dem nag ci garab yi dañuy lekk garab yëpp dem nag ci dot yi bu ñu paree dañ naan jeexal nañ ci kaw suuf léegi asamaan moo ñu defee jeexal nañ ci kaw suuf asamaan moo ñu defee nee na bu ko defee kenn ci ñoom am lu mu sànni ci kaw asamaan muy taw di ret ñu ne ah léegi nag rey nañu waa asamaan fekk nattu la gu leen yàlla di natt nee na bu asamaan tàmbalee taw deret yàlla yónni ay sax sax yi dañuy dugg seen loos yi ba jékki-jékki ñoom ñëpp daal di faatu nee na bu ñu faatoo ñoom ñëpp nag boobu jullit ñi ñu ngi làqu ci kaw doj yi ak ci biir tafe yi nee na ñu ne waaw kan mooy seeti ji xeetu yaay ju dem waa ji fu ñu mujjee am kenn kuy wàcc bu wàccee nag gis na ñoom ñëpp dee nañu nee na mu daal di de oot nag woote génn leen génn leen génn leen yaa juude ak maa juut xeet woowu jeex nañu faatu nañu bu ko defee yàlla wàcc nag taw bu am doole taw boobu moo leen di yóbbu ñoom ñëpp seen yax yaag ñu des ci ñoom kon it war na ñoo gëm ne yaa juude ak maa juut ñoom it daañu feeñ ci kaw suuf ñeenteelu mandarga bi mooy tuluu shamsi min maghribiha juróomeel bi mooy xuruju daaba ñeenteel bi mooy jant bi daan fenk fii ci penku bi dañuy xëy rek mu fenk ci sow bi am ko soppe soppeeku gu la soppeeku goo xamante ne dafay jaaxal ñëpp jànq jant fa mu aadoo di fenk ñu xëy rek duñ ko gis foofu mu mu fenk fii nga xamante ne fa lay sowe juróomeel bi mooy ak daaba guy feeñ benn daaba ñu ne am na melokaanu gëléem am na melokaanu nag am na melokaanu fas goo xamante dafay feeñ jóge penku ñu ne daaba gi buy génn am na ay borom yi xam-xam ñu ne dafay mandargaal doomu aadama yi am na ay ñaar yu muy ñaar nit ci am na façon ñaaf muy ñaaf ñi gëm yàlla am na ñaaf bu muy ñaaf ñi nga xamante ne gëmuñu yàlla am ñu ne du ñaaf bu muy ñaaf tamit waaye dafay wax ak ñoom wuute boobu mu ngi tegu rek ci benn njàngin wala ñaari njàngin ñuy jàng aay bi wa ida waqa al qawlu axrajna lahum daabatan min al ardi tukallimuhum ci beneen riwaaye tuklimuhum bu dee tukallimuhum mooy day wax ak nit ñi ne leen buntu tuub ëpp nañ ko ku gëmul woon yàlla moom daanaka jeexal nga bu fekkee riwaaye tuklimukum na tuklimuhum nag mooy daf leen di ñaar ñi gëm yàlla am na ñaar bu mu leen di ñaar yéefari am na mandarga bu mu leen di defal yéen nag dafa am lu mu wax ci ñaari melokaan yi jant bi fenkum ci sawam ak daaba gi nee na xaw ma ñaar yi ban moo ci jëkk feeñ yonentu ma wax de xaw ma ndax jant bay jëkk feeñ wala daaba gi mooy jëkk feeñ waaye daal lu ci mën a am bu ci feeñ rek morom maa cay topp bu fekkee yéen jant bi daa fenk fii buy fenk fi rek daaba gi génn bu fekkee daaba gi mooy jëkk génn nag nee na jan fenku jant bi ci sow bi moom moo ci topp kon kooku moom mooy juróomeelu mandarga bi juróom benneelu mandarga bi mooy naarun an naarun lati taxruju wa taxsuru naasa min al mashriq ila al maghrib mooy safara soo xamante day feej jóge penku jëm ak nit ñi sow penku madina nag la ci nama penku madina ba mu jëm ak doomu aadama yi mooy jaam safara soo xamante safara su am doole su rëy mooy fenk rek dàq dàq nit ñi fu doomu aadama yi wëlbatu ko rek daf leen fay koj jëmale leen maanaam maghrib safara soo xamante foofee lay jëmale doomu aadama yi loolu moo tax yéen ci yàlla bi ne mujjug jamono bu ngeen demee ba mandarga yi feeñ maa ngi leen di dénk ngeen daw dem Cham maa ngi leen di dénk ngeen daw dem Cham Cham bu ñu koy waxee mooy tey réew yi mooy lu mel ni Jordanie yi Palestine Ordun maanaam réew yooyu nga xamante ne moom lañ dogat démb moom lañ daan wax Cham fa la ñuy dajale doomu aadama yëpp jëmal leen fa keroog bu bu ñuy dekkal jaam yi kooku mooy juróom benneelu mandarga bi juróom ñaareelu mandarga bi mooy ak ngelaw luy feeñ ngelaw loo xamante ne yàlla da koy wàcc ngelaw loolu bu feeñee ku mu fekk ngëm yàlla nekk sa xol daf lay rey waxoon naa ko sànq ngelaw loolu bu feeñee ku mu fekk ngëm yàlla ci yow daf lay rey bu ko defee ne ñi mu fi bàyyi mooy ñi gën a yées ñi gën a yées ci jaamu yàlla yi ñoom la fi ngelaw liy bàyyi te ñooñee mbokk yi bés pénc ñoom lay taxawee di ngay faral di dégg jullit ci ndeysaan ñii ñaan naan yàlla na yàlla baaxe te yeexañu loolu baaxul de yàlla na yàlla yàlla na yàlla yóbbuñu rek ak ngëm yàlla moo gën kuy ñaan da ngay ñaan yàlla bu la yàlla jël mu fekkal ak ngëm yàlla waaye ñi ciy mujj mooy ñi gën a yées bés pénc ñi muy taxaw ñi muy taxaw ci ñoom safara lañ jëm ñoom ñëpp ndax yonent nee na ah jamono ngi ñëw ba kenn dootul wax allah baatum allah kenn dootul wax mais ñi gën a yées ñi gën a yées ci bi def yàlla yi ci ñooñu la bés pénc yi taxaw bu ko defee nag ngelaw loolu bu faatee ñi gëm yàlla ñëpp ñu bon ñee ci def ñu nekk fi rek kenn dootul wax baatu allah kenn dootul jaam yàlla li ñuy yëg a yëg rek ba yàlla subhanahu wa taala diggal malaaka bi mu wal buftu bi tremblement daal di am ñooñee daal di faatu adduna mbokk yi daal di tukki kon waxtaan waa ngoo fii la adduna yi jaar mandarga yi nii la ñuy topp nii la ñuy toftaloo nii lay feeñe ba adduna wala tukki incha allah bu nu yàlla baaxee xëñ na kóoru déwén bi ñu waxtaane nag adduna du muy tukkee ak yowmal xeeram la fay xew ak ñu baax ñi nañuy dugg ay janna yàlla na yàlla boole ñu ci ak ñu bon ñi nañuy dugg safara yàlla nañ ci dégg day kon nag lii bay waxtaan bi ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko nanguñu suñu koor nangu leen bu ko defee leçon bi ñuy jëlee ci waxtaan bi yëpp nag mooy gannaaw li ñu lim sànq te yeneen limoon ko ci ay siècle yu bëree bëri lu ci bëree bëree bëri tey jii ñu ngi koy dund ñu ngi koy gis kon nag nunu góorgóorlu waajal lii dafa bokk ci yërmande ji yàlla am ci xeet yi mooy xamal leen ay mandarga yu wane ne adduna léegi tukki pour jaamu jaamu yàlla ñu gën a góorgóorluwaat delluwaat seen borom subhanahu wa taala jaamuwaat ko dañaat ba set wecc ci lépp loo xamante ne dafa safaanoo ak li nga xamante ne moom mooy ak njub yal na yàlla boole ci jaamam yi ñi nga xamante dañoo nangu ko jaam gindiñu teg ñu siraatul mustaqim def jàmm ci adduna bi def jàmm suñu réew mi delloowaat jurit ñi seen diine jëlal bu rafet yal na yàlla aaraat lislaam aaraat jurit ñi أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
imam Alioune Gueye yal na yàlla yàggal sa taxawaay doolu dëwér suñu imam war nañ leen di ñaanal ñu bañ leen di fàtte ndax lan ñu mel ni sama komp ji nga xam ne amuñu xam-xam su dee ñun rek ñoo fi def xam nga diine dafay tumuraane ñoom nag nekk nañ ñuy taxawee suñu diine suñ leen wooyee ñu bàyyi seen yitte ñëw te yàlla tax te di ko waxtaan bi ci gis seen bopp waxtaan bi gën a rafet kon bu ñu di fàtte imaam yi di leen ñaanal ustaas di leen ñaanal ndaxte moom sax ngànta waroon na ko waroon naa mën a nga am ngànt bu du ñëw waaye bëgg gi mu bëgg diine ak bëgg ñu dimbali ak bëgg gi gëm gi mu gëm moo tax mu ñëw moo tax question yi lu mu bari bari nañ ko waaye ngir ñu mun ko yell dañ leen di ñaan bañ ko fàtte tabarakallahu ahsanu xaalihin li ñu bëgg a wax ne mooy mbokk yi waxtaan bi yaatu na yaatu boo xam ne li ci ustaas wax dafa bari lool mais ñun li ñu ciy jéem lépp la waaye dafa jafe ba soo xoolee da ngay naan doo ko mën ah kay dinañ ko mën gis nga mandarga yi muy wax dafa bari li ci nekk rek mooy jullit bi moom dafay xool rek mandarga yi muy tudde yi nga xam ne mën na nekk ci jullit mën na nekk ci jullit te du ko yëg léegi da ngay commencer di tabb sa bopp di xool rek mandarga yi mu lim yëpp est-ce que am na boo xam ne laal na la ci wala am na loo yoo xam ne laal nañ la ci bu boobaa nga commencer defaru waaye nañu mooy ci joxoñ naan ah li mu wax kat gis naa ko ci jiw waa kii mel na nii déedéet defaral sa bopp rek boo defaree sa bopp keneen def noonu keneen def noonu kon ñëpp jub parce que dafa am suñu benn xarit benn mbokk bi nekk bi tukulóor yi dafa mu ne dafa wax wax ju am solo mu ne tukulóor yi dañu ne képp kuy joxoñ ñu naan ñii nii lañu mel di xas nii nii nii nee na baaraam yi si des kan la joxoñ da nga xool baaraam yi si des kan la joxoñ yow la joxoñ kon la ngay wax nit ñi yëpp mi ngi ci yow la ngay wax nit ñi yëpp mi ngi ci yow man li ma ci wax rek mooy comme julli nekk na loo xam ne imaam junni na ko sànq julli dina dem ba julli di sax doo duñu julli waaye da ngay dee ñi lay jullee li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ku dee te du julli bu leen ko jullee bu leen ko suul dañu fi jullit waaye léegi nga gis nit day bàyyi julli sax di askanoo si jullit mais am na lu gën a garaaw loolu ñi nga xam ne duñ julli ñoom dañuy caaxaan rek nekkuñ dara mais damay ñëw si ñun ñi nga xam ne ñooy julli bis bu nekk juróomi yoon si biir jàkk yi ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp parce que ñi dul julli ñoom nekkuñ dara foofu jaru commenté day guddal wax mais ñun ñuy julli lan la ñu war a fagaloo lan la ñu war a fagaloo parce que li mandarga yi mu wax waru nekk si jullit waru nekk si jullit lu tax parce que alxuraan indi na ko yàlla wax na si benn aaya inna salaata tanha ani fahshaay wal munkar julli dafay tere lu bon ak lu ñaaw kon fekk yaa ngi julli te bàyyi loolu araam ak lu ñaaw jullee gu ak koo mën a doon nag parce que waxuñu ko yàlla moo ko us imaam wax na ko sànq wax na ba mu yàgg ne lii du sumay wax waxu yonent sallallahu alayhi wasallam Sénégal nag soo waxee rek ñu ne mu ngay xaste mu ngay attaqué déedéet lii bi ko islam di wax encore une fois bi ko islam da boobu waxuma Sénégal Afrique sax amul boobu suñuy maamaati maamaati maam juddooguñu tey boo ko waxee ñu ne sang song na diw song na bii kër song na bii islam a ko wax kon ni ñu góorgóorlu ci loolu incha allah kuy julli melokaan yooyu waroo ko am waaw ñu ñëw si question yi mbokk yi ñu mën a gàttal question ndax ñu mën a yeewu incha allah imam question yi balaa ñu ci dugg am na loo xam ne man dinaa poser d'abord sama question boobu parce que loolu duma ko rus a wax su fekkee melokaan yi imaam wax daf la laal yow islam baax jubal la moo gën ngay sàmm sa der ci loo xam ne taxawul parce que dama dégg benn ustaas bi waxtaan keroog si rajo bi ne soit dafa araam te effectivement dafa araam ñuy laam laama nag ban soit la soit bi man téer la li li ñu di ñëw yàlla suturaal na ma lu bari mën naa fa ñëw mais soit dëgg dëgg dëgg xam naa ko mais oustaz dafa wax lu am solo lii soit la lii du soit li gën a wóor daal mooy bul dugal sa loxo lii dina màtte dina màtte du màtte du màtte bul dugal sa loxo rek bu ñu nee lii soit la di ci werante rek bàyyi mais man question bi may posé oustaz daf ma laal te xëy na dina laal yenn mbokk yi parce que bëgg rafet ak bëgg solo ak bëgg nunu warul tax nga yàq sa islam warul tax dee këf la ci loolu te bi ngay dee lu ko lu araam mi ngi sa kaw wala moom lekk nga ko wala laal nga ko loolu jaru lii ma sol nii oustaz laal na ko parce que veste bii ma sol man mën naa ko ñëw te li li nekk ci biir xam nga mbir mi dafa sew ba léeg-léeg yow yàlla dina araamal dara nga bañ ko waaye mu nekk ci yow da nga ko bañ de bugguloo ko mais day nekk ci te doo ko yëg parce que dafa sew gis nga lii ma sol am na doublure ci biir man dama xam bu baax mbirum ñëw doublure bi ci biir musuma xalaat na soil musuma ko xalaat gis nga kon nu muy laalee nii musuma ko xalaat te bëgg ko taxul ma sol ko moom laa léegi dama bëgg sama première question mooy oustaz wax ma cravate bii ma sol waxuma ko ndax araam na wala araamul su nee soie la rek tey jii laa koy tàmbalee bañ sol ak veste bi ma sol si biir am na di bu dee soie la rek te man lii bari naa ci de waxuma ñeneen ñi man keroog laa koy tàmbalee bàyyi sol waaw loolu mooy sama question bu fekkee oustaz lu na ko ma dugg si question
mbokk mi laaj na laaj bu am solo laaj boo xamante ne daanaka mën nañoo wax ne ñun ñëpp la ko laajal ñun ñëpp la ko laajal dafa mel ni rek la xewoon waa ñu ñëwul waaw xam nga al koor bi mu tàmbalee bi ko tàmbalee wàcc dañu aay woon sax su ñuy woo ñu jote seen soxna ci guddi am na waa joo xamante ne ndeysaan yàlla daf ko natt mu jote soxna guddi weeru koor mu xëy nag ñëw laaj keneen ci yàlla bi ba mu ko laajee yàlla wàcce aaya fa xeldat lakum laylatu siyaami yow axasu illa nisaaikum guddi koor yi léegi daga nañ leen ngeen jote seen soxna amar na waa ji jërëjëf waay laa daal nga ma kon waa ji daanaka ñun ñëpp la la laaj laale yàlla defal ko taw fii li mu wax dafa am solo dañuy faral di laaj naan li gaa ñuy sol léegi ndax wala war soit li mu wax daanaka mooy tontu lu ñuy laam-laamlee dagan nag dagan boo bëggee ñoŋal sa dund doo koy bàyyi yeneen nee na li dagan leer na nañ li xaraam leer na nañ diggante li dagan ak li xaraam am na ay mbir yu ku ko moytu nag bàyyi ko di nga ñoŋal sa diine ñoŋal sa leer ku ci kàbbi nag dina la yóbbu ba nga taa ba nga dal ci xaraam kon nag lu ñuy wuute dagal naag daganu bàyyi lu ñuy wuute dagal naag daganu yow julli bàyyi soit ñu ñaa ngi sol benn tusi ñii ne soit la ñu def soit te am na tusi yu ko dàq fuuf yoo xamante ni ñëpp dëppoo nañu ëpp ko valeur bu fekkee valeur nga bëgg a sol ëpp ko valeur bu reetaanu gën ko rafet yoo xam ne ñëpp dëppoo nañu def soit tee ngaa jël yooyu bàyyi li nga xamante ne coo wuute ala kulli haal loolu jullit bu nekk na xool boppam di natt boppam am na yoo xamante ne kenn mënu cee dindi yaay xool rek gis na lii lu ñu aay gis nga jamono bii kenn mënul forcé kenn la bàyyi lii ndax amul kilifa goo xamante ne dafay àtt woo islam nekk ci boppu jullit yi amul kenn mënul tere kenn dara boo nee dana tàggal jaar ci ku lay def du la dóor ñeent fukki yar du la dóor ñeent fukki yar kaso lay fanaan jigéen bi mu neex wasal say gàtt guddi ngay jaar sa ngay jaay sa bopp kenn du la dóor ku dof def la ba dóor la mooy kaso lay fanaan kon jamono yi kii di dafa ngoon kenn mënu koo tere yow jullit bi nag da ngay jàpp ne même boo amulee nguur gu lay tere lu bon wala kilifa jàppal ne yàlla moom mu ngi ci kaw asamaan si la bu ko defee lu baax nga def ko ngir moom rek lu bañ nga bàyyi ko ngir moom rek ah yéen xam ngeen bu baax a baax yéen a ma gën a xam ndax li ëpp ci yéen branché woon ngeen xëy na da ngeen débranché woon li ëpp ci yéen dañu mel ni woon man dañoo branché woon démb xamoon nañ mbir mi am na cravate yoo xamante ne ay soie la am na ay chemise yoo xamante ne ay soie la maam am na jiital ñu def costume ay soie la boo ko defee nag gëstul xool maam ñëwkat yi xam nañu soie jaaykat yi xam nañu soie maam bu fekkee cravate bi soie la nga bàyyi ko ci yàlla rek tax chemise bi soie la nga bàyyi ko ci yàlla rek tax ah jiital bi ñu jiital ci costume bi mën nga jël beneen tissu jiital ko te day rafet lool ah te yàlla rek tax kon nag jullit bu lu ne lépp lu muy jënd muy yëre muy dàll war na kaa seet su si jamono ji nag di nga jënd yëre boo xam ne sax ab courant moo ci nekk doo ko yëg wala nga jënd jënd yëre boo xam ne sax maam ay nataal moo ci nekk nga demee dem ba sol ko sa mbokk yi di wàll la ko doo ko yëg loolu sàggante la maam xudu xisrakum ku nekk na jël matukaayam yëre yi ngay sol nga xam ko xool ko dàll yi ngay sol nga xam ko xool ko ah lépp lu même li ngay lekk sax nga xam ko xool ko bu nekk ku bàyyee ko kon nag am na mbir yoo xam ne ñu ci góorgóorlu buñ ci góorgóorlu ak yàlla dafay taw bi ku dem a dem nag ba xam-xam dab la nga gis ne li nga daan def moo xam jaamu yàlla la moo xam jikko bi noonu ci yow la moo xam loo loo daan sol la loo daan lekk la te lislaam aaye ko maam dañal ba set wecc ci loolu jullit noonu lay mel bul xaar dara bés bu la xam-xam dabee rek bàyyi loolu te ba man taraka shay'an lillahi awadahu la xeer minhu yéen itam la ko wax ku bàyyi dara te yàlla rek tax nga bàyyi ko yàlla jox lu ko gën wallahi ladim maam yi ñu aaye fii ci adduna maam kenn mënul wax ne lii moo tax ñu aaye ko soit xam nga du sobe du sobe kenn mënul wax tax lu tax ñu aaye yàlla moo xam pour natt ñu ku ko bàyyi fi nag bokk ci ni koy xéwlu ko yow ma xiyaam waaye ku mu fii ñu aaye nag bu yow ma xiyaam mais doo jëfandikoo yooyu nga xamante ne yàlla daf ko jox leen gaay yi yàlla kon nag ku ci nekk na xool boppam rek ku ci nekk na xool boppam ak la muy sol bu fekkee gis na ci lu xaram gis na lii soit la moo xam cravate la moo xam costume la moo xam chemise la mu bàyyi ko sa borom bi subhanahu wa taala donc donc donc donc donc tax waaw. daal avocat yi nga xam ne ñoom dañuy guddal islam ba bu ñuy àtte dañuy àtte si loo xam ne daal dafa génn àtte islam. xalaat bi ñu dem ci ñoom dafa ñu ñu ñu koy def. ndax magistrat yooyu loi bi ñu àtte ñoo ko bëri ñun ñoo ko bëri ñoo ko ànd kon nag sanction buy dal ci ay biir dal ñuy toog di àtte wala àtte waaye umma bi yëpp lay dal ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo fal ay nit yoo xamante ne ñoo leen di àtt ci àtt yooyu kon nag bu ñu jëwee si ñoom ñoom ay julli ñu sàggal comme ni ñu nekkee ñu sàggal ñoo nangu loolee loolu fa def ñoom ñu koy àttoo kon daal ñàkk a àttoo islam sanction bi ci umma bi yëpp la jëm fekkat borom xam-xam yeeg góor yeeg jigéen yeeg ndaw ñi ci ñëpp la jëm ñun ñëpp bu ñu demee ci borom subhanahu taala dañu laaj responsabilité boole ñun ñoo war a dundal sant foofu avocat yeeg magistrat yeeg jiit yeeg ñu ngi jiiteeg ñun ñëpp sanction bi ñu toll lañ xëy na dafay ëppante am na ñoo xamante ne seen seen seen sanction seen sanction booy gën a rëy ndax amoon nañu pouvoir boo xamante ne mënoon nañoo changé waaye nag yëpp daal ñun la yem bu ñu seet kenn dëgg kii la ñun ñëpp la ñoo waroon nekk ay jullit yoo xamante ne dañuy gëm yàlla dëgg dëgg gëm nangoo dund suñu lislaam nangoo àttoo li nga xamante ne moom mooy suñu àtt yi jullit nag boo xamante ne yaa ngi nekk ci yoonu njàng da gis ne lii boo ci xeetu xam-xam bi boo ci sóoboo mën na laa yóbbu ci lu bare bari loo xamante ne dëgg dëgg la sa xeet la ku bàyyi def yàlla rek tax yàlla mën na la jox lu gën waaw
ci dafay laaj ndax ñëw yoon ci yàlla islam ndax bu ko bu fekkee nit gëmu ko loolu mun na tax maanaam mun na yàq ngëm
day yàq nga fekk loolu mooy wet yoon yàlla bi ñëw ci yoon yàlla tax ku wet nekk ci yéen ndax yàlla suma ko diine ku ci wet bi dara lu leer nañ ak yëfal nga ne asalaamaaleykum ci julli sax ku ko wet nekk ci yéen yéen li mu wax ku ko wet bi nekk ci yéen xëñ ne kan moo lu nekk mooy ku koy wet ci réer mooy ñu naan instant bi ñu wax teg ko ci ñàkk xam ak ñàkk maanaam texte yi kooku lu ñuy wax daal yéen dañ daan xamul dañ ko war a xamal waaye koo xamante ne xam na ko ba pare dégg ko ñu andi ko ay référence bu wóor medd ko kooku moom ci fàtte bi sax bi ay taal rek am na am na sax yu ñu naan moo gën a tuuti yooyu bu ko wet nekk li nga xamante ne moom mooy ah fii yéen waaw.
ci dafay laaj bu ne ndax xale bu am juróomi weer mën nañ ko génneel azaka ñaareel question muy laaj ndax nit koo xam ne woo dafa woo mën naa tuuru ba
waaw mu wàcc koy mburu koor xale bu am benn fan sax dañ koy génnal ku judd daal balaa jant bay sox ba su kore balaa jant bay sox ku ci judd dañ lay génnal mburu koor ku ci judd balaa balaa jant bay sox ku ci judd dañ lay génnal mburu koor fekk na xale bi dafa judd na gannaaw taw gerte nga xamante ne weer wi jeex na boobu boobaa kenn ku génnal mburu koor ndax ku war dina parfum ah kañ ku war sax mu war dina parfum ku war day parfum day soccu day sangu day diwu day def ñu ko faddank bis yooyu yëpp ku war mën na koo def kuy faral nag jël sa nopp di ko jox ko xamul dara dina la sànq rek lay problème di leen déglu ñi nga xamante lu wóor la ñuy joxe nit ki buy déglu day tànn ñi muy déglu loolu borom lax dëri moo ñu ko jàngal li war ci mu kàlla bi mooy ah balaa moo jëf jën jëf mu xam atte yàlla jëf jëf te laaj borom xam-xam yi waxul borom xam-xam yi de ah al muqtadina bis sunna borom xam-xam yay waxe sunna nga xamante ne duñ la wax sama baay nee na sama maam nee na di la théorie rek gars yi dañu bëri ay théoricien ak ay diiwaankat diiwaankat mooy kuy wax wax ji ba mu jeex tag doo dégg xaala rasul xaala laaw doo ko dégg sama baay jaaroon na fii sama maam jaaroon na fii ku am baay ñun am nañu baay nag bu dof dof ba ñu tudda bàyyi jàmm ngay ngay mbëkki mbir di daanu yow sa baay wala ñu naan suñu yaay ay soxna lañ yow sa baay du sox sa yaay du soxna loolu lay firi loolu mooy mbëkk mu xaalafa buñ na ñoom seen yaay ñooy soxna yi loolu mooy yéen yéen seen yaay ñooy soxna maam kenn dong moom la ñu war a déglu waxam mooy yàlla yonent bi al imam ibn al qayyim nee na al ilmu qaala allahu qaala rasul wa ma siwa dalika fa huwa batilun nee na xam-xam mooy yàlla ne yonent bi nee lu dul loolu ay neen la
ci dafay laaj mu ne Arabie Saoudite est-ce que bu ñu gisee weer bi rek dina dagan ci Sénégal ku wóor ànd ak ñoom ndax di nga am koor
nan la andi Arabie Saoudite rek waxal sa bu weer yi feeñ ci adduna bi même bu feeñee Japon sax lii moo tax ñu leen di tuumal di leen di tuumal naan ay pro saoudien ngeen maa waxal rek weeru feeñ ci kaw suuf même bu bu fee feeñee Bangladesh ah wala mu feeñ ci Cap Vert bii fu mu feeñ dañu war a woor loolu mooy xalaat bi gën a lëng nag waaw.
ki dafay laaj mu ne pour préparer sa maanaam sa koor maanaam xam naa dafa dafa am gànt ci koor mu ne juróom benn fukki miskin yi ngay leel ndax mën na ko def ci xaalis.
ma delluwaat ci laaj paas parce que Arabie Saoudite sax seen borom xam-xam yi xëy ati kibaar ulama ñoom seen position ci wàll ci masala boobee mooy réew mu nekk ak gisinam kon kooku bokkul ak moom position yow ki nga xam ne nag bokkul ak moom nag position ci benn masala nag ngay yoroo ci moom l'islam xamul réew mii yonent yàlla bi ba muy wax waxul woon ak saoudiens yi waxul woon ak africains yi daf ne umma bi la doon waxal suumu xeet la doon waxal kon nag l'islam du diine gox du diine la diine universelle la maam xeet bi yëpp ka nekk Arabie Saoudite juddoo fa nekk surtout yonente yow mi juddoo fii yaa ngi moom yonente bi ci diine bu ko taxawalee sa mbokk la maanaam bu ko taxawul donte surtout yonente la sab noonu la xam ngeen ne Abu Lahab bi bàyyi la ci yonente bi moo ko bàyyam ñoo bokk benn bàyyi kon mbokk gu jëriñ la waaye bés bu ne ñu ngi jàng tabbat yada abi lahabin kon mbir yi noonu nañu tënku ci texte yi bañ di tënku ci ay réew wala ci ay mbooloo wala ci ay association wala ci ay tariqa nañu tënku daal ci alquran ak sunna bu ko defee mbir yi jaar yoon waaw juróom benn fukki juróom benn fukki mis ngay leel man ko def xaalis jox ko loo xamante rek mën na kaa dunde mën na ko def doy dépense ci bés bi moo xam dundee nag wala xaalis
kii dafay laaj mu ne ndax chrétien dina dugg àjjana ndax chrétien dina dugg
chrétien moom bu dugalee àjjana kenn bu duggee àjjana kenn du ko sabab chrétien bu dugul sabab kenn du ko sabab chrétien bu dugul sabab kenn du ko sabab yonent moo ko wax moo ne maa ngi giñ ci yàlla bi nga xamante ne sama bakken mu ngi ci moom yahud bu ma dégg wala chrétien bu ma dégg te gëmuloo ma boo dee di nga dugg sabab chrétien yi gëmoon Eesa ci jamonoom àndu nag moom ñooñu àjjana lañu jëm ay jullit lañu ak ñi nga xamante ne avant Muhammad di feeñ ñi ngi woon ci diine Eesa ñooñu ay jullit lañu waaye ba Muhammad feeñee chrétien yoo yahudoo ak ceddoo ah ak communistoo ñun ñëpp ñoo bokk benn ngooy te safara sa rek lam yakun alladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikin ñu ci teg wa fi naar jahannam
kii moom nee na dafay laaj dafa bëggoon woo ko yan yan yan livre maanaam yan téere la mën a jënd daal yoo xam ne incha allah dina ko jàngal lépp loo xam ne lépp domaine si mbirum islam daal.
téere du doy da ngay laxasu ku ci def sëriñ da ngay laxasu ndax ku jël say téere def ko sëb sëriñ bi nga tànk maanaam il faut nga ut ci sëriñ mooy sëriñ bi wala ndax dañ doon wax rek ku xam alxuraan xam sunna te xam xam-xam ndax bari na kuy tënku ci rasul di wax rek te maîtriser wul xam-xam su ma waxee xam-xam nu mooy xóot ci lu mel ne ilmal usul ilmal hadith ilmal tafsir ilmal faraid ilmal mustalah xam-xam yu xóot la bu fekkee da nga bëgg rek tàggat ci wàllu xam-xam gëstul ko xam loolee mu dem tëral le programme fi ne ni man nu ma laa tëral programme ndax xaw ma sa niveau waaw bu fekkee ne yow débutant nga am nga loo war a jàng fekkee ne yow am nga niveau boo xam ne dégg nga laa ko arabe am na loo war a jàng ku ci nekk rek ak programme soo defee nag yooyu boo demee ci ku la mën a jàngal ku la mën a orienté mu jox la tuuti soo defee nga tàmm ci yàlla
kii mu ne moom dafay laaj ndax àdduna bi mën naa dundaat comme siècle yi nga xam ne dundoon nañ ko fi maanaam si kenn nga xam ne dundoon nañ ko muy laaj mu ne dafa bëgg ay précision maanaam ay leeral si maanaam la fin du mois.
àdduna mën naa dina si wax te dina ñëwaat yonente dikk nañu ne xilaafa dina ñëwaat mooy yàlla dina def tax jullit yi doole wax na ci xadis sax ne jullit yi dinañ dañuy duma yahut di leen duma ba yahut yi di làq ko ci garab yi garab gu ñu làq ko rek garab yi ne la hey jullit kaay yahut a ngi nee na genn garab genn garab dong moo leen di làq tudd na ko ci xadis bi teewlu ma ko nee na garab googu dong moo leen làq waaye garab yëpp fu ñu làqatu rek garab yi ne la hey yaa abdallah waraa i yahut yi ab yahut mu sama gannaaw kon loolu doole la te insha allah dina ñëw nag boo xoolee jullit ñi léegi ni ñuy delloo seen diine alhamdulilah dëgg la ñu ngi xeex lislaam ñu ngi xeex jullit ñi mais tey jii boo xoolee lislaam ñu ngi dellu si waat tubaab bi tey jii jëfandikoo nañu doxalin yépp gis nañu ne jagalu adduna benn doxalin dong moo def te jagaloon adduna ñoom jàng nañ ko xam nañ ko te nanguñu ko essayé muy lislaam insha allahu xilaafa dina ñëwaat xilaafa dina ñëwaat kooku loolu bégal la ko yéen yàlla bégal xeet yi kenn bàyyi bu nekk ci lislaam nekk jeune nekk jigéen góorgóorlu te xam ne xilaafa dina même sax bu xilaafa ñëwaatul sax nga dee ci ngërëmal yàlla rawatina yéen te àdduna xilaafa macha allah dina ñëwaat benn laaj ñu ci laaj mandarga yi mandarga àdduna moo doon waxtaan yi surtout ba léegi moo doon waxtaan yi
waaw kii dafay laaj mu ne su fekkee tegte li nga xam ne mooy def nitum jamono ñëw na est-ce que yàlla dina dina dina maanaam dina nangu suñu tuub muy laaj ñaari question mu ne ndax euh, nga ñëwaat tuuti si maanaam sangu janaba ban waxtu lañ koy def ak naka lañ koy def
am na mandarga yoo xamante ne bu feeñee ku tuub dañu leen nangul mooy mandarga yu ndaw yi mandarga yu ndaw yi ba nga xam ne duñ koy gis ba su ne ku tuub nangul la waaye am na ponkali mandarga yoo xamante ne bu feeñee kenn dootul nangu tuub muy fenku jant bi kii ak génnu daaba bi fenku jant bi kii ak génnu daaba bi yooyu moom bu génn rek buñ tuub tuub dañ koy tëj même sax bu Insa wàccee ak Dajjal Mahdi yooyu ku tuub ñu nangul la waaye yonent nee na bu jant bi fenkee fii ci sowukaay bi daaba bi génn dañuy tëj buntu tuub waaye teg loolu amagul rek